tey li ñu fi dajalee dajaleeb jàmm la li ñu fi dajalee mooy li nga xam ne Arabie Saoudite def na ko jëmale ko ci réew senegal ci wàllug ndimbal ci wàllug tàndarma bi nga xam ne at yu ne Arabie Saoudite yónnee ko suñu réew pour jàppale koo jàppale doomu aadama yi nga xam ne ñoo ngi fii te seen loxo jotu seen ginnaaw at bu ne gis ngeen ay tonnes yu bari la réew moomu di yónnee suñu biir réew pour jàppale ko askan wi ren yónnee na luy tolloog cinquante tonnes yoo xam ne réceptionné nañ ko tey ci tey et incha allahu taala fan yi ñu jëm danañ ko distribuer ci ñi nga xam ne ñoo ko moom moo tax également ñuy profité ci occasion bi nii di santaat yàlla bu baax mais aussi di sant ki nga xam ne moom mooy roi bu Arabie Saoudite ak prince héritier ak toute la population saoudienne ci ndimbal bi nga xam ne à tout moment ñu ngi koy def jëmale ko ci askan wi mais jëmale ko ci surtout particulièrement ci réewum Sénégal ci looloo tax également j'en profite de l'occasion pour transmettre ay nuyoo ay cant peuple bu Sénégal jëmale ko ci peuple Arabie Saoudite sans pour autant ma bàyyi kenn ci bi donc li ñuy ñaan yàlla li nga xam ne c'est des relations séculaires moo am suñu diggante réew depuis ay ati at ñun ci toll ak ñii ñëw incha allah taala ñu yokk ko waaye dara bañ cee wàññeeku alhamdulilah. Euh, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite mettra tout en œuvre pour coopérer avec euh, les autorités compétentes en l'occurrence euh, le ministère du développement communautaire pour que ces dates-là cette aide puisse arriver aux ayants droit. Euh, c'est aussi pour moi l'occasion de transmettre les salutations de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohammed Ben Salman à son Excellence le président de la République euh, Macky Sall. C'est aussi l'occasion pour saluer euh, son, son Excellence le ministre du Développement communautaire et aussi tous ses collaborateurs pour tout ce qu'ils mettent en œuvre pour euh, que cette aide-là puisse bien arriver aux ayants droit dans les meilleures conditions.